l'actualité on continue gars yi actualité bi ñu fas yéene waxtaanee ki nga Marseille avec Pablo Longoria avec Pape Alassane Gueye mi ñu bëgg prolonger wax également ci Longoria li bu wax ci CAN bi ak aussi Sénégal notamment hein, taxaway bi nga xam joueur sénégalais am nañu ko ci Marseille ak ci Coupe d'Afrique mais laata bobu gars yi image bi dama koy partager ak ben yéen ba yéen na hein, ben paa mo wax lu ñu mel mom dafa ne ben ben ki moko publier mu ne ko paa bi dafa ne ko ñi événement naar 89 ñoom ñoo doon wër di yàq di ay Gloria ba ay tey yeneen kii donc loolu façon malak la rek justement pour un peu avoir une mais gars yi ndax kii xàmme ngeen ko kii mooy Fallou Fall fukki at ak juróom-ñaar la am ñu jamoon ko bal ci manifestation yi fa amoon warloo ko ay hôpital ngoon ba deux heures du matin mu faatu ñàkk deret ndax ñu ñàkk hôpital bu ko mën a téye kii mooy Cheikh Wade kii la ñu dóoroon bal la as takk der dóor bal ba léegi nii mënuñoo wax ne kii moo ko def lu ni mel ndaw amagul woon sax 30 kii mooy Cheikh Wade ñi ngeen di gis tamit nataal yi xool leen ñii ay doom lañ ay rakk lañ ay xarit lañ ay doomu ndey lañ ay àndandoo lañ ku si gën a mag fanweeri la am ñëpp tey bu fekkee ne ñii ñëpp Sénégal tax ñuy xeex ñu ne tey ñii nii ay ay terroriste lañ kii nii mooy Mamadou Diop am na ñoo xam ne amaana ay tout tànk lañ woon wala fekkee wuñ ko am na ñoo xam ne fekkee nañ ko te dund ko Mamadou Diop mii la oto jaar ci kawam mu nekkoon université amoon soxna amoon doom tey dëddu àdduna ndax am lu muy xeex. gis ngeen gis ngeen gars yi bu affaire buy métti fépp lay métti <laughs> gis ngeen lépp luy caaxaan sax Sénégal jamono ji dafa taxaw parce que li ma wax rek Sénégal bu yëngoo rek ñëpp ko yëg kër yëpp ko yëg benn misaal nag gars yi laa leen jox ñi nga xam ne nag mooy nekkoon diggante mbëtt la woon ak nga mooy donc unku ñuy xeex nekk ci kaw. nekk ci kaw plafond wu néegu benn maire di xeex maire bi woo xar ne ko kay àtte xar ne sama yoon nekk ci mu woo nag ne ko kay àtte nag ne sama yoon nekk ci mu woo mbaam ne kay àtte mbaam ne sama yoon nekku ci mu woo fas kay atte fas ne sama yoon nekku ci ñoom ñaar ñuy xeex mbëtt ak unk di xeex ba dugg ci ànd bi nga xam ne mooy nag ànd bi nekkoon ci néegu maire bi ànd bi jàpp jàpp sàkket yi taal néeg bi maire bi ñàkk ci bakkanam xar moom lañu ñu gënalee nit ñi moom la ñu rey ci bisu dëj bi mm, euh, mbaam moo doon dem di jël jëli li nga xam mooy matt yeeg yooyu ñu doon taale ak siège yeeg yooyu noonu fas tamit moo doon dem di yëgle mbir yi ñoom ñëpp dañoo mujjee faatu ci jeexantal bi loolu di misaal rek di wax ne àdduna saa waay nit boo nekk si ab gox li may wax rek bul ne rek yow kese la ñi nekk tugal nekkuñu Sénégal ñi ngi dund lu leen neex buñ wax buñ ko waxee ñi ngi daan seen doole mais ba Sénégal li leen Sénégal jaral jaral ñu ko sax ñi nekk fii ndaw yi fi nekk ay xale ndaw yoo xam ne amaguñu soxna amaguñu dara Sénégal jaral leen lii kon war nañu gën a xoolaat suñu bopp yàlla nañu yàlla rek saa su nekk mooy xol mooy ñu également njiit yi ñu mérité te njiit yi ñu mérité mooy ndaw yi nga xam dañoo gëm seen bopp mooy njiit bu gëm boppam li actualité pour la première fois hein, de l'histoire du football féminin africain hein, ni d'Afrique du Sud Nigeria ak Maroc qualifié li deuxième tour coupe du monde lu reuy hein, Maroc tamit nga xam né gaay ñom Allemagne mais qualifié jël deuxième seen poule Sadio magnifique tey ci banque bi lay départ par rapport li xam nag mooy match ba ñuy joué ñoom waa Al Nasr li day soog a yegg si et te entraîneur bi également daf ko bëgg jox temps mu récupérer mais dina dugal aussi ci match bi am nañ ci am rek daal ñun attaquant moom doyal nañ ci li ñuy wut kay mooy yenn poste yoo xam ne dañ ko bëgg a te aussi bu ñuy jënd sax di fekk poste yu ñu am nga xam ne yëpp doublé nañ ko kenn bëgg dem ce qui veut dire ne Alexis Pape Ngaria wax na ci nee dañoo bëgg prolonger Pape Alassane Gueye fi ne ni ci la liggéey ñu ngi waxtaan ak agent am aussi ki nga xam ne mooy donc Pape Alassane Gueye gars léegi incontournable ci dispositif bu Marseille gis ngeen ko pré bi dafa def pré bu exceptionnel demam bi mu dem Séville nag am na lu bëri lu ko apporter parce que physiquement mentalement kii di Longoria wax na ko ah, dafa am loo xam ne dafa dayo bu Sadio kii di donc Pape Alassane Gueye eh, weesu ba tax tey jamono ji ko bàyyi moo tax ñu bëgg ko maintenir mais également li gën a neex ci nouvelle yi Pablo Longoria nee na gars yi nañu bàyyi bu ñuy recruter rek ñu naan waaw bu leen recruter joueur africain yi dafa dafa bëri mu ne bu ñu tënk recrutement ci benn weer ji joueur jëndoo ko ci benn weer te it nee na également ñun waa war nañoo commencé xalaat waa France na la ñuy fexe ba kaan bu amee ci weer bi muy am ñu annuler ñu ñu ñu suspendre li nga xam mooy Ligue 1 les plus championnat ko ci kaan bi mu baña am lo dal la gis ki xam moy donc Pablo Longoria lo nak di fekk ci lo xam ne Aliou lay arrangé te waxon na la ko ay jamono na la wax lutax Marseille donc ni joueur Sénégal di arrangé Aliou parce que Marseille joueur Sénégal fi nekk yëpp mosu ñu am problème mu dem équipe nationale Sénégal bu ñu soxla même joueur africain ça yu kan jotee Marseille da di Marseille da leen di bàyyi donc aujourd'hui bu Longoria waxé di day gëna dalal xel et je pense que né aussi lolu moy yoon donc gaay nak yeen joxaleen seen xalaat mais wéy leen di like wéy leen di abonné on avance ensemble Free Sénégal jaa ngeen